bàyyi dugg nag ci kër gu mat a jël jël fi jabar tarkaal la laaw la cat na fi seen doom sëy bi nag la cat nit ku baax dangay ngay delloo le woon fa woon ndax nag tarkaal la dan naan junj mi rek na gar mi day wàcc doomu nday fa waali sek meg bëgg waali bu xewlee nii rek lay mën a demee dañuy sàjj écarté prier jàkkaarloog moom jëmal baas bi jëmal tante bi ndax fi mu dugg si duñu judd jeeri duñu mbadantaan fii la ñu dëkk waaye mes soog doomu dëkk bi la mu bëgg nag ki nga xamante ni laat job dégeen baay daagu daagu dégeen baay kura faaleeg dégeen borom fukki penc yeeg ñaar mu ñëw dugg ci këru fukki penc yeek ñaar ki na juuf jaaga la ñuy jooy te noppee guñu farami ci ndeer naa tàkko mi ci mbay laa tukkuróor kura njéeme borom jigéen ñëy maamam soo da gay baabu mbendaay maamam mes soog nag jël ko bëgg ko fu ñu jëm yóbbu ko fu mu jëm ànd ak moom mu nekk ginnaawam nekk derrière am nekk ci góosam bisam bii dañu koy ñaanal lépp lu mu bëgg te dugg ko ci biir kër gii yal ci yàlla teg loxo sëyam bii yal na boole bokk ci sëy nu takk ci aras ci barke Seydina Mohamed Waly Seck nag laaw la cat ak mi yaa gise ku xew la ñu ràcc jàkkaarloog yow ay way wandeelu lañ Waly dama naan ko coon la ñuy jooy te noppeeguñu te damitu baaraay baara te gumba bu amee fitu sànni ci xeer la dëgg yéen nag ñu ngi leen di jaajëfal liggéey bi rafet na laaw la cat nit da ngay mën sa nawle ndax nit njariñ kontaan nañu macha allah. gaa let's go ñu dem mas doo ko ci sëy bi mais mën nga foofu maintenant dañ koy wax ci stop yi wax ko ko gaa yi xarit yi ba léegi ci mariage u Met ñu fekk fii ay xaritu jabaram soxna si na nga def ngi si jàmm mais yow te tout le temps beauté da noo tudd. Khadija Khadija euh, lan moo waral tey sa teewaay ci mariage Met bi. dama ñëwoon jàppale sama xarit Nabou. nit ku ah. baax ku yaru kenn déggu ko ci coow kenn dégg ci dara. Ah. franchement xamante bu yàgg te yàgg na Met Shop tamit nit ku baax. ouvert mhm. ñoo bokk ko ci et tout baax na yaru na benn problème daal. Ah, yal na leen yàlla may ay doom yu ay njaboot yu barkeel. allah sëy bu yàgg li bëgg daal yal na leen ko yàlla defal. mais mais mais sénégalais yi laajte sax soxna yi Met Shop xamuñu ko gisuñ ko ci réseau yi elle est discrète euh, yow miy xaritam kooku mooy kan. xale bi xamul TikTok xamul dara dafa rek waaw génn li ma koy gis ci koñ bi bëriwul. waaw taxawaalu nekkul xale yi taxawaalu ba seen tëb seen. waaw tilim wala dara nan baax na yaru na na daal franchement. macha allah waaw ah, waaw muy séyal koo xam ne célébrité la di ànd ak célébrité Wally Ballago Seck donc Met Sop garçon boo xam ne dañ koy suivre si réseau yi euh, loo koy conseillé te muy séyal koo xam ne dafa siiw dafa am tur ah, na muñ rek te tee jëkkër nit ku baax la franchement waaw waaw waaw ku baax la waaw nit ku baax Alassane moo la ñawal jógal ñu xool Alassane bi la ñawal jógal taxaw bu ko defee sénégalais yi xam ni sañ-sañ nga mais excuse ñu nag si dérangement bi Mass Mass moo ko demandé donc euh, lii la sol ci si réception bi sañ na <laughs> merci madame jaajëf waaw c'est waaw sama gitu, Kamera belakang sedikit. Belakang sedikit.

no, no, no, no, no.

waaw waaw waaw rëgg-rëgg gars yi ñu ngi jégalu abo ñu ngi jégalu waay xoolal da ngeen di defaale nii rek da ngeen di jàppale gars yi abo da ngeen di jàppale da ngeen di jàppale waay gars yi da ngeen di jàppale rek dégg nga gars yi yaa da ngeen di avancé tuuti. dugg na ci famille bu baax laay duggoon bu baax laay duggoon bu baax waaw amoo. Somebody. diya ida wana la samawati Música Wali mangga bulan

xoolal xalaat du la ko may yàlla na nga eggale yàlla na nga dan lay bàyyi nga joxe yónneen bi joxe nuyoo bi ak cant gi nga soog a eggale. jërëjëf Baye Boye. asalaamaaleykum as tuut déglu. ñu biral ay ne ay kaddu cant lay waaye ay kàddu gi yëppante lay doon wàccal ma buum bi tuuti wàccal ma buum bi wàccal buum bi wàccal buum bi maa ngi sàkku ci mbooloo mi ñu déglu ndax nag tubaarkàlla macha allah li ko day di rëy rëy rëy rëy rëy danoo bi yéen a tey ku ñu rek am loo yóbbaale te li nga xam ne moo fi dajale mbooloo mi te ku ñu war a yóbbu mooy kóllëre wolof nee na ginnaaw lay féete ànd boo gis ànd si da cay wax ci télé bi bis ku set na nit duñ ko maafe duñ ko yaasa duñ ko macaroni duñ ko nambe nit njaay li waral nag président Wally boo am nag moom am nag nit dootu la saf ci àdduna président de la république rek ministre ak chef de quartier waykat ak fecckat ak ñëpp a yem ci yow benn atte parce que ni muy téye moo tax monsieur le ministre Mathieu jotaay tey bii fekkee naa loo xam ne ci sama gët tax na ma gën a yeesalaat sama ànd ak sama jàpp jëm ci jëm ci tool ndax nag lu tool yi bay bay bay bay bay lu ma am fu mu yegg fu mu dem kan yaram moo fu yóbbu kon tey lu mu bëgg bëgg bëgg ak lu mu bëgg bëgg bëgg waroon naa mën a jiital kan yaram doo ko teg nit ndax nag waali waali waali ji lu coono yi bari bari bari bari bari ba mu dégg président tey carrière bi la tey laa gis ci samay bët mu daan bàyyi carrière bi ci couleur bi ko yàlla boole ak yow. alaaj boobu bay ci tournage clip bu tàng jër lañ nekkoon 17h ba 23h ñu ngi tourné te pareeguñu waaye bi 23h jotee président dama ba doon a jóg man ko 23h mu ne ma ah léegi mbooloo mi tas ma ne ah, mu fekk mbooloo mi gën a tasaaroo mu bi te wuy ci monsieur le ministre médecin réalisateur yaa ngi toog cameraman yaa ngi toog maquillage yaa ngi toog ingénieur de lumière yi ingénieur de son yi ñëpp ngi toog di xaar ba ci jigéen bi tourné clip bi ma nga toog di xaar mu wàcc kër ga ñëw di gannaaw mbubb mu teg ci kawam na ma leen dem ñu ànd ak délégation bi ñëw bi ñu ñëw cuur bi léegi dafa ne monsieur le ministre bala ko daan man man li ma sol nii nekk sama ko jënd ci alalam fay ci ñëw bi xaalis a bari jëbbal ma ko dama moom laa bëgg nga sol koy ñëw ci bis bi kon yaakaar naa ne li fii di président kóllëre la te président di jottali ay kàddu cant ak ay kàddu ngërëm ci sa jëmm amul sa fay jërëm jëfati ànd si ndaw la ak ànd si góor nga ànd ak moom li nga def ci moom defu ko ci yow li nga def ci moom defu ko ci yow nga bëgg ko te yàlla tax téye ko te yàlla tax jàpp ko te yàlla tax su wootee nga sacrifier sa liggéey sacrifier sa jot sacrifier say soxla sacrifier sa njaboot sacrifier say wéyjur bàyyi lépp teg ko fi Sénégal wuy am na mag yow Angleterre am na mag yow Amérique am na mag yow Europe njaboot ngay bàyyi bàyyi liggéey jëppal président si jëm ci. kon tey yow boo xewlee bu ay bali fa doon loolu tàkk ak ay karaw président dina ko tëj ñu wuyu si la waaye yàlla war as door Maria si monsieur Dieng monsieur li tax ñu ànd ak yow du ñu am coow sago te bu dee taxalee ñu ngi nga dund lii la lii lii lañ koy doyee. Mbooloo muy teew tey bu jotaay bi tasoon te ñëwoo nag sot xaru day dee. ndax du ko attan ci àdduna waaye lii nga mën a sëñ mariage mooy sa liggéey bu nu deelee yàlla na yéex yaay jiitu ak say nag bu nuy ngénte yaay jiitu ak say nag bu nuy takki jabar yaay jiitu ak say nag suñuy jàngi doom yaay fay itte bu ñu am ci suñu dund yaay def te bu la neexoon nag ñu ay pour lu góor ñu ne liggéey war nañu ko xooloo suñu liggéey tegoo bët suñu métier tegoo bët suñu fi yàgg tëwér yàlla na nga fi yàgg tëwér yàlla na nga mucc yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla taxaw te yàlla nga yegg gaaw yoon si ñoo sa didi

Met shot mag moom. Fifty. Met met met. Met Ahmed Sall. Ahmed Ahmed. Day soog a egsi. Te da ngaa gore lool. Ba pare Amit teggin li jafe ci aar. Gis nga aar bii ni man bu ñu xëccu. Ñi Baik am nga yar am ngay teggin am nga dal am nga allah sama dem dem koy yóbbu loo xam ne ko waxtaanee ak moom booy répété di nga ànd ak amul ñaanu yaay fii da ngay dégg waaye am nga yaay allah la fay sama dugal dugal ko ñorek ñorek waaw mais soxna Formose yes yes yes bokk ñu ñu ngi tuuti ndax nag jëmu jiw kii damay faral wax ci semuanya rek toog te loolu waroon wax ndax naka euh, faral ci mën a ba ñuy gën a nekk ay booy ñun mer soog moo ñu def nante nee na moom siggaru ba ñuy gën a nante mer soog moo ñu njëkk ay yére yu rafet ñun mer soog moo ay yére yu nante Ndakaaru ku fi doon defar ay yére flocage ngay def sorti temps booy booy def sorti lépp dañ daan ñëw bopp fii ci mer soog ñëw taxaw ko toog maag si biir bu ñëwee bu ñu fay dara loolu du tey loolu démb la parce que nag gars yi dañuy gis ak Met xam naa tey la ci dañuy doon lu tey lu ñu yàlla ba tey sama liggéey bi liggéey nekk liggéey na ci lu bëri dama yegg si fii tey te nit xamu ko yaa dama téye samay mu ngi ñu toog di jël ay millions dugal ko sama liggéey kon dama koy ñaanal taw suuf ñaanal ko jàmm ak kii sama lépp la damay dem Espagne barki dem Barcelone daa jëlal ba comme billet aller retour sama jour boo doon dem Foussa daf ko ndax sama jumb ànd ak ñoom ba Barcelone ñu ànd fa yàlla mooy ñu ndam kon loolu boo xewlee kenn du ma fi jiitu damay ñëw ba neex boo fi ñëwoon dañuy def dix cent dañ koy def te bu fekkoon xew li dafa war a nekk rek dañuy ñëw teg rek bu mu neex mais yàlla la yàlla defal jàmm yàlla jubóo leen sa jabar yàlla sàmm leen yàlla dal leen sutura yàlla defal leen tawfiq lii mun ma foog ñaax wax bëgguma sax di wax subir la rek <laughs> loolu xëy wax li ngeen fekkee ñaar wax ma démb wax ma tey te kii ñooñu jàpp ne bari na de médecin mi ngi si mbëri médecin mi ngi si social yi maanaam fi nga dëkk nii bokk def du fi lu ne Balla bu bëree daan da nga may ay junni yu ne ma tëggal sabar yi ba pare nga bëgg bas ngeen yàgg loolu ma xam si dara barke Serigne Bamba. est-ce que est-ce que gars gars da ngeen changé. ñëw na sa suuf waaye bu si tudd borom lay tollool. ah monsieur doomu day doomu day Waly Balago Seck. doomu day Ama Baldé. doomu day ñëpp. doomu day Balla Gaye 2. Ah, doomu day si photographe. ndax yaakaar naa bopp dara wàllu nga nekk président ASC bi nekk président jëlee leen coupe barki Serigne muy sama xarit waaw ah bisu bisu ngeen bëgg ah xale yi bisu ngeen bëgg waaye xale yi bisu lañ bëgg asa. waaw looloo jërëjëf ku fi jël jëfal ak yaran jàng ari ko ka jël jëfal mi ta dawal kër bi baa ngi metti na sama kër bi dama tuma raay ba ala fa sama jom ko la ngi dëkk biri ndok ko la xam tamé la bokk ko dañu wax ak kii mo dañu la may wax ak kii rek baal ko rek day wax ak moom rek. non mais doo ma ba max. waaw ah, Mbaye wax nga asalaamaaleykum jël lépp asla ba nga xamante ne kel ñaar quelque mënoon na jël ñu koy paasal mais ñoom waaw loolu tamit dañ ci am ñoom am nañu ci dañuy def

waaw ça va ñu def parce que avancé tuuti bu génn Malik coffret bu am ay piis joxe naa dara waaw joxe naa tabarkalla beneen coffret boo xam ne lu baax lu nekk nit waaye kii ngalam la li way yi bëgg lii si joxe lii la joxe defalal ñi la dañuy yéen a ngi may seet yéen a ngi xool première njëkk trois fois kàlla macha allah juñ ñu ma rëkk nag gar day waaj boo mënee nag